yéen a ngi ñuy topp ci Fafa TV. Fafa TV daara ju yees joo xam ne yàgg ngeen ko mébét ñu bari ñu ngi jële seeni njaboot bitim réew di leen indi Sénégal ngir ñu jàng Alqur'an. te bariwaa na buñ ci amee ay rëccute ci sababu nekkin woo xam ne ñoom duñ ko mën a dékku waaye alhamdulillah tey ubbil nañ leen daara ju bees yoo xam ne ñaar fukki ndongo ak juróom vingt cinq élèves rek lay jël ñoo xam ne dañuy interné wu ba noppi nag fekk fi condition yoo xam ne yu baax a baax la euh, ci wàllu seen nekkin ci wàllu lekk dañ koy dëppaleek ñoom li ñu miinoon di jëfandiku nikinoon it seen tëdduwaay yi ak seen nekk ni dafay doon loo xam ne lu set la waaye ay néeg yu ñu climatiser en même temps it njàng moo xam ne dafay tegu ci yoon nga xam ne ñi leen di jàngal dañuy nekk ay jàngalekat yu am xarañte ci alquranul karim waaye it ñi leen di encadrer ndax du jàngale rek waaye dañ ci amaale ay programme yoo xam ne éducative la nga xam ne xale bi du ñem ci jàngal ko waaye dañuy yittewoo tamit wàllu yaram kon yar bi ak nekkin bi ak njàng mi lépp dañoo bëgg mu doon loo xam ne luy tegu ci yoon la inna allazina kafaru bizikri lamma jaahum wa innahu la kitaabun aziz لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد ما يقال لك إلا ما قد قيل للرسل من قبلك إن ربك لذو مغفرة وذو عقاب أليم daara jooju ngeen doon mébét euh, bëgg a indi seen njaboot ñu jàng si fii ci Sénégal nekk ci condition boo xam ne bu baax la bu dëppook seeni njaboot li ñu miin alhamdulillah yàlla yombal na ko mën ngeen jokkook numéro yooyu ngeen di gis muy affiché walla ngeen dugg ci site internet alhudanet point com ngeen inscrire incha allah dinañ leen contacter wasalaamualeykum wa rahmatullahi wa barakaatu. xam naa loolu bisimilah. léegi suñu ñaareelu question bi. surtout li nga wax si Abdou Diouf noonu kon xam naa foofu lañ koy commencé. baax na mooy ba muy dafa waxoon ne waa Afghanistan danañ leen fekk foofu noonu jigéen ñi pour génne leen. mu ngoog waaw Sonacos bu ñu xool ci information yi. Mhm. mooy dafa mel ni américain am nañ fa ñaar fukki at. waaw te am na ñu leen fi jiitoon mu Union soviétique. Mhm. waaye fan yii nii li ñuy gis mooy dafa mel ni américain yi génn nañ dem ba taliban yi nga xam ne ñun bu ñu leen doon dégg. Mhm. dañuy dé lu ñuy dégg si ñoom daal mooy ay terroriste lañ. wax nga dëgg. man ndax Afghanistan léegi ay terroriste ñoo ko yor. xam naa damay dem fi nga tàmbalee laaj bi mooy. fi nga tàmbalee laaj bi. dafa am lu am solo loo wax maanaam euh, Afghanistan diiru ñaar fukki at mujj yi dafa mel ne da nga cee teg ne ak la ko jiitu woon. waaw jërëjëf la ko jiitu woon lu jar a bàyyi xel la. Euh, expérience bii nga xam ne. kay moom la moom la américain yi mujj a expérimenté ci Afghanistan moo mujj sëñ faafa mhm. da ngay delluwaat 1842. boobu moom xamuñ ko dañ koy dégg daal da ngeen koy dégg mënu leen koo xam di ñu ñi sax dañ koy dégg rek xam naa yéen yu mujj yi sax di fekk yow leen ko ci laa jëm si nag bu soobee yàlla 1842 ci la empire britannique booba nag euh, britannique bii ngay gis dafa amoon doole ndax ñaari superpuissance mondiale yi fi nekkoon euh, moom benn la ci woon 1842 ñoo français yi dañoo amoon doole trop ak 1881 muy ñaari dat ak mille 1919 dama koy tënk noonu ñetti dat yi yëpp benn bu ci nekk euh, anglais yi ñëw nañu def lu mel ni lii fa américains yi def du fa gan sotti fa seen doole lépp pour lan coloniser leen saxal leen ci njaam teqale leen ak seen seen diina alhamdulilahi rabbil alamina ñetti cong yooyu yëpp ci ñetti dat yooyu yëpp suñ borom subhanahu wa taala daf leen a ñu génn Afghanistan xeet wu gëm yàlla lañu. gannaaw boobu nag xam naa ci ngay door a junj. ex Union soviétique 1979. Ah, kon avant Union soviétique tamit am na ñu fa njëkkoon. britannique yi fa njëkk. Ah, ak ak muy français yi nga wax. ak français yi ma la wax ñun ñëpp a maanaam daal ba Afghanistan bu la neexee mën nga koo tuddee benn montagne boo xam ne euh, dafa mel ni suñ borom fa lay daanelee superpuissance mondiale yi ku ci dem ba am foo toll rek bu la yàlla namee toroxal da lay yebal Afghanistan boo koy mbëkk rek tas loolu moo daloon euh, anglais anglais yi moo dalaat union soviétique bi maanaam union la woon union te la ñuy wax si mm. waaye démb yéen booba xam naa ne ay gune ngeen 1979 xaw ma juddu ngeenam déet booba ngeen ci doyit waaye gune geen waaye ñun ñu ngi koy fàttaliku bu baax ndax ñun boobu ay jeunes lañ bañ fay wàcce lañ fa wàccee woon ci arm ndax booba ñaari doole yi fi nekkoon mooy Amérique ak Union soviétique Amérique bokkoon na ci li nga xam ne pexem la woon mooy lépp luy toroxal Union soviétique dana jaar ci suuf dëgëral ko moo tax bi Union soviétique dalee ci kaw Afghanistan te mu xam lan mooy Afghanistan xam démb is Afghanistan ndax Amérique ab Angleterre la rek ay dox dajee fa daje anglais yi ëpp fa doole not leen te ñoom ñoo daloon ci ca démb ja ci ci ci Afghanistan muy montagne doj wu rëy wu ma lay wax fa lañ tasee woon moo tax biñ gisee seen nattaangoo bi wala seen wujju yi dal ci Afghanistan bokk na ci lañ njëkk a def mooy ñëw jaar ci suuf jàppalanteeg réewi arab yi foofu nag lu doy waar maanaam benn film bu doy waar daf fi bëgg a juddu euh, jàppalanteeg suñu suñu réewi arab yeeg réewi jullit yëpp jox leen armé leen booba sax taliban yi juddooguñ booba ay harakat islamique ñoo fi nekk ay mouvement islamique ñu ñëw armé mouvement islamique yooyu tuddee mbir mën a jihaad la ndax lu tax ah Amérique moo ko wax Amérique comme nee na jihaad la rek suñu mbokki arab yi dañ naan jihaad la ci gise gisee woon ñoom Osama benn Laden góor ñooña daal di jóg ñu libéré leen ubbil leen buntu yi ñëw euh, placé foofu ci Pakistan di dugal ndimbal ci biir suufu Afghanistan di xeetu ndimbal bu ne. Ah, kon mooy li may dégg ñu naan euh, taliban yi. Mhm. comme xam kii mooy wax ne maanaam ñoom ñoo ñoo formé taliban yi. voilà boo gisee ñu naan Amérique. ñoo créé taliban yi te taliban yi ay terroriste lañ. kon ñoo créé alqaïda encore lii la. ah kon est-ce que ñoom seen jihad bi dana valable. Euh, ma ñëw seen jihad valable na waaye eh, eh, Amérique ak boppam. Mm-hmm. moom dafa exploité jihad jooju jihadu Afghanistan. pour daaneel wu jëm wi. Ah, comme li ñu naan noonu sama noonu sama sama xarit la. jeex na. waaw noonu noonu noonu noonu sanoon ah. sa xarit la comme nag Afghanistan dal dal nañ ci seen kaw tey mujj amir ñoo dal ci seen kaw mm-hmm. afghans yi ñoom lañ doon bañ mooy bu leen communiste mu yilif mukk mm-hmm. lank nañ comme lañ lànkale woon colonialiste yu njëkk yi Amérique ñëw ak ndimbalam ànd ak réew yu arab yi yëpp ne ñii ay yu mujaahiduuna lañ nga xool baat bi jihaad suñu réewi lislaam yi yëpp déclaré jihad ubbi frontières yi ne ku mën a dem ca jaar jën a dem waaw ubbi frontières yi mujaahiduuna yi di dem librement ñu tënk loolu mu jeex 1979 Union soviétique ña ngay def lañ man ak lañ mënul téeméeri junni militaire lañ fa wàccee ci arme nag kenn xamul nu mu toll loola yëpp dellu mujjaat fa anglais ya mujjoon démb ak français ya muy lan daw wëqit wucc fa seeni i char de combat wucc fa seen i eh, armement seen lépp fa lañ ko bàyyi daanaka mën naa wax ne fa la Union soviétique doxee daanu tas comme na anglais tasee woon ci eh, jëm jëm ji ñu tudd Afghanistan ñu ñëw kon jël am na ci moment yooyu nag ci lañ nekkoon jihaad ji jeex na na ñëpp delluwaat seeni réew alkaayida juddu na ñoom déedéet jihaad ji jeexagul jihaad ji jeexagul parce que ba tey jii gouvernement bii ñu fay samp ay communist ñëw ko jiite kon il faut ñu nettoyer communiste yi bañ jeex takk loola nag ca lañ commencé léegi indi tudd terrorisme xanaa ñaari équipe dañoo changé. tey rek ñi fi nekkoon dong la ñoom benn laa deen ñee fi nekkoon démb di ay mujaahiduuna ñu reconnaître leen tey ñoom la ñu diaboliser tuddee leen ay terroristes. Ah, parce que lañ mooy fee lee moom daaru na pare na objectif fu am Amérique atteindre na ko kon nag léegi jihaad moom rupture coupé bu ko kenn tuddee ci jihaad dañ ko tuddee terrorisme moo tax ñii mbir lu jar a teytal la. mujaahiduuna ya fa nekkoon continuer waat ba daane laat maanaam ña fa nekkoon comme ay communiste ak i siit foofa fala la taalibaan yi ci biir jihaad jooju diiru ñetti at mi ne commencé ko maanaam 1988 89 90 91 ci la taalibaan yi ci biir guerre bi dem ba gis ne lii métti na ni leen di bundu xataalee ëpp na ñu ngi commencé dal ci seen daara yi tuddee leen ay intégriste comme ni ñuy dalee suñu daara yi. sëriñ daara yi ñu di leen toroxal di leen rey rey yu métti loola andi tur Taliban sëriñ daara ya fa nekkoon ne Rossiet ndax rey gi bëri na. dugg Pakistan pour rawale seeni ndongo. rawale seeni daara comme ni mu amee woon fii 1905. biñ demee ba sonal suñu mag ñi ñu bëri dañ ne Roseet ñii dem Niger ñii dem Nigéria. Mhm. ngoog baax na. Taliban foofu la juddoo Taliban mooy taalube yii ci senegal mhm. moo tax la turu taalube. gis nañ sax ñi ngi wane sànq maa ngi gis benn vidéo ñi wane ñi jël réew mi léegi seen daara yi ñu leen di wane. ñi dugg seen biir daara ñoom ay sëñ daara lañ. gis naa ñi wane seen taalube xale yi di jàng. <laughs> jërëjëf gis nga sëriñ daara soosu nag dawoon dugg dugg Pakistan. Mhm. ñoo dem ba jëmmi jamono ñu xelaat. ñu ñu seen la nekkoon ca seen mag ña juddu wàcc ci seen biir muy jihaad ñu gis ne seen réew seen réew la kon waruñ leen a bunduxataal ñu génn réew ma rek bàyyi réew ma ci loxol communiste yi ñu ko ñu koy foye ca lañu ñu commencé nag organiser wu ay suñ daara yu xaw a nombre ya nit ñu wuti ca lool ñu naan matoon nañ fanweer ñu naan ñeent fukk lañ woon nombre yi ñun soxaluñu waaye rek as mbooloo su ndaw la woon. dee seen boppu taalube yi. maanaam ndongoy daara daaray mu ngi mel fii ñu ne ndongoy daara yi loolu mooy taalibaan taalibaan mooy taalube ci ñun. bu defee nag man bala maa jàll foofu te sëñ Fafa dama naan <clears throat> ab sëñ daara yàgg naa bañ fii ñi résistant yi fi nekkoon yëpp ay sëñ daara lañ woon. boo déggee ñu naan Cheikh Oumar Fouti mm-hmm. euh, rahimahullahu taala di dégg ñu naan mm, El Hadj Abdoulaye Niass Eh, di dégg ñu naan ah, Cheikh Ahmad Bamba ñoom ñëpp rahimahumullahu tabaraka wa taala di dégg ñu naan sëriñ ba nekkoon ca Canaba muy sëriñ eh, maa ngay fàtte tur wa de Alpha Ibrahima Seck xamatu jàppatuma tur wa waaye ci gàttal tur yooyu yëpp ba ci génération yu mujj yi ñoom alaaji ab sëñ sëñ Xalifa Ñas fii ci Léona Ñaseen Alaaji ma Niass ci Médina Baye sëriñ Hadi Touré fële ca nu mu tuddati ñii ngay dégg yëpp ay sëriñ Daara lañ woon. man daal moom xam naa lu ma si jaaxal mooy. waaw ay résistants lañ woon. américains yi ñoo ñëw fekk leen seen réew. ci seen réew. di jàppanteeg ñoom. Mhm. Euh, léegi ñi tuddee leen terrorisme. wala mhm. américains yi ñoom fu ñu ñëw rek sañ nañ def lu leen neex daal ndax wala kañ la nit di mën a laaj àqam. jërëjëf moo toll ak ni ñu français yi fekkee woon fii ci suñu réew. fekkoon fi sunu sëriñ daara yu mag yi toroxal leen tuddee na ñoom lañ nekk mooy lu légal. te suñ sëriñ si liñ nekkoon mooy terrorisme. da ngay dégg tamit borom xam-xam yi wane na ñooñu tamit maanaam am na borom xam-xam yi wax si ñoom si taliban yi. Mhm. yàgg nit ñi yàgg nañu wax si ñoom di leen diaboliser te da ngay ñoo xam ni waa lislaam lañ tamit. voilà ci laa jëm si woon ndax euh, taliban yi. bi ñu résister commencé mat fanweer mu jig ñu naan ñeen fukk mu jigi ñu naan ay téeméer mhm. dañu mujj am doole euh, di song song yañ daan song di daw dañ ko bàyyi dañoo commencé di song nag léegi mhm. di jël euh, réew maanaam dëkk par dëkk wilaya par wilaya ba mujj yilif réew ma taaliban yooyu nag ci jamonoy Molla Omar tuddeewuñ leen woon eh, ay dëggi-dëggi terroriste dañ maanaam ñoom dañ woxoon ne ñii ay mu muqaawimuuna lañ maanaam ay résistants lañu waaye ñu ngi leen gën a jàppee ay terroristes nag biñ demee ba euh, créer li ñuy tuddee ñaari tour yi la ñu ñu explosé woon ci Amérique. aska muy Wall Street Center euh, askane ko benn Ben Laden te lépp ay ay sos la amul montage yu ñu ci deful nag ci gàttal foofa lañ bëggoon mooy. nu ñu def ba duggaat Afghanistan comme Union soviétique daanu na kon ñoom dañ war a jàpp ne foofa dañ ko war a yilif yilif nag réewu jullit yëpp seen mondialisation lañ bëggoon a lawal moo tax ñu jaaree ko ci Usaama ne nañ ko jébbale dañ ko jébbalewul ñu dal ci seen kaw te xam nañ ne Afghanistan ay gor lañu ay jullit lañu duñ jébbale mukk seen gan moom xam nañ ko ci ñoom ci gàttal kon Taliban looloo ko jur. bañ lànkee ne duñ ko jébbale muy l'an 2001 li nga wax nii nag ca la ñëwee muy lan borom xam-xam yu bëree bëree bëree bëri joxe woon nañ ay fatawa ne nañ jébbale Oussama Ben Laden dañ ko jébbale ndax ñaari doole yi méngoowuñu doole yi Amérique xajul ci Afghanistan loolu jar bàyyi xel la sëñ Fafa alhamdulilahi rabbil alamin maa ngi fàttaliku ci jamono booba defoon naa ci benn xutba doon wane ne dooley lislaam mosta méngoo mosta nattangoo ak dooley kéefër naka jekk yi kéefër moom mos di sut moo mos lépp doole waaye nag yi lislaam jooju ñu ne dafa tuuti buñ fàtte ne dooley yàlla moo ko sukkandi mooy doole juñ mënta gis ci laa defoon benn xutba wane ne Afghanistan loolu ñu nekk mooy yoon amuñu sañ-sañu jébbale nit koo xam ne ay noonam ñoo koy sàkku ndax yonent bi salaay salaam daf ñu ko tere ah, ba muy wax ne al muslimu axul muslimi laa yazlimuhu bokkoon na ca wax ja mooy wala yaxzuluhu wala yaxzulhu mooy bum mu ko jébbale bu mu ko geccangal kon gis nga ah, dëgër googu ñu dëgëroon ci yàlla ak matal kóllëre ca la leen suñ borom subhanahu wa taala jàppale bu ko defee nag ma ñëw bala maa jàll passage boobu di wax ne sëriñ daara yi ñoom itam nañ bàyyi xel bu baax taxawaay bu am solo bi nga xam ne suñu mbokki sëriñ daara yi ca Afghanistan taxawoon nañ ko démb ba tey lii moo nekkoon taxawaay rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam lii moo nekkoon taxawaayu ñam jàngaloon ashabatul kiram ridwanullahi alayhim ajmain ko defee lool ak fàttali la rek ci ne kuréel yu ndaw ndawaan yi nga xam ne tey ñoo yilif adduna bi nekk ay petite minorité imposer leen ay ay bëgg-bëgg. Hmm. bëgg-bëgg yoo xam ne tegewul ci yoon. dafa war a jeex. Hmm. dafa war a jeex hmm. ndax sonal nañ doomu aadama yi te itam eh, delloo nañ lislaam gannaaw lislaam nag dara mënu koo delloo siwaat ci kattanam lu dul ak njabootam taalibaan yaa ngoog kat taalibe yaa ngoog daara yaa ay roy waay la ma gën a neex ci mbir mi mooy Amérique dafa waxoon ne doy na sëkk une semaine ñu écraser li ñuy tuddee Taliban. ci vingt ans yi ñu fi nekk ni une semaine la waxoon. une semaine. une semaine booba di dox ba nekk weer ba nekk at ba nekk ñaari at ba nekk fukki at ba nekk ñaar fukki at tey ñu dugal fa loo xam ne ci alal kenn xamul nu mu toll pour former l'armée afghane dugal fa loo xam ne ci armement kenn xamul nam toll la fa te tey ci doomu Amérique ñaata la amul benn euh, sorti bu Amérique mos a génn mu yàggee nii perte fa nii lu toll nii ci njabootam euh, dépensé fa lu toll nii ci alal waaye suñ borom subhanahu wa taala ñëwaat na nam ñëwee woon xas ca keroog ci xaswatu badr fii nag gis nga ko dafa nekk ay tool bu heure bi jotee salir <laughs> mu ngoog euh, bu ko defee kon euh, mbirum mbirum taliban yi. Mm-hmm. man damay jàpp ne euh, miracle divin moo ñëwaat. man moom xam naa li ma ci laafaale mooy américain yi fa demoon. Mm-hmm. ñoom ñoo nekkoon Irak. te daanaka dafa mel ni dugg bi ñu dugg fii nii ci ay lay. Mm-hmm. lañ dugg Irak ci tuuma. ci ay lay loo xam ne amul. waaw waaye ñoom dañoo reconnaître na lañu waxoon Saddam Hussein amul. jërëjëf bindu ko foofu man li may wax muy population yi. maanaam ñoom buñ ma buñ baalee ni ma koy waxee kañ la ndox di nekk ci seen bopp yi. Mhm. ba ñuy sañ a weddi ba baa ñuy gisee luy luy dëggal li leen wax. jërëjëf maanaam li ñu waxoon. Mhm. ci euh, Afghanistan Irak. Irak président bi si boppam bu doon sax keneen la waaye président bi moo toog ne la ma waxoon amul. dara amu ca. maanaam lii moom ma taxoon a jóg. waaw teewul ba tey jii nii. Mhm. waa Irak seen aq bi ñuy laaj ñu ngi leen tuddi ay terroristes. te dañoo pendre président ba rey ko ci gratuitement. waaw ci bis bu mag. waaw dañ ko dañ ko atte ko yóbbu ko tribunal si loo xam ne yow da koo sosal te nee nga da nga koo sosal. Mhm. ci loolu noonu lañ toj li bi ci loo xam ni amul lenn lu leen xaddaafi def mhm. te suba buñ taxawaatee ne Sénégal terroriste ngi fii tamit ñun dañ naan waaw ba tey suñu médias yi ñoo koy wax mhm. te li ma seetlu sax mooy Afghanistan bi ñun suñu médias yi parce que waxuñu maanaam daal bu bu bu États-Unis soxla wala France. waaw ñoom dañ koy jaalale waxee ko ñun ñun ñu bëgg. voilà euh, bu ko defee li li nga wax ni sëñ Papa dafa am solo maanaam ñoom daal ñooy sang yi. waaw noonu saa dama xam ne médias yi nu ñu mën a fàttee noonu la dañuy dañuy fàtte Irak Irak Irak Irak. Afghanistan Afghanistan léegi nag américains yi génn nañ ñi ne miix. voilà maanaam comme dara xewut. comme dara xewut. ci loo xamante ni am na si avion boo xam ne bi muy génn nit ñi dañ ci doon lang ba am na ñoo xam ne avion bi day naaw ñuy wadd mhm. ndax daw génnaar maa ngi dégg kooku noonu am na euh, xam nan la tuddi moom itam daa yor seen mhm. mu ne naan këri ak ñu bon ya nga xam ne ah. gars yi baaxee jël nañu réew ma mhm. ñu waroon dawaale noonu te loolu laa gëm exactement sëñ Fafa maanaam dafa am lu ñuy tuddee euh, xaslu dimaax maanaam euh, lavage di cerveau dafa mel ni ñun loolu la ñu defal dañ lay programmer canaliser la ci benn canal takkal la ay lunettes doo gis lu dul la ci biir canal ba lu ñu la gis loo rek moom ngay gis lu ñu la dégg loo moom ngay dégg loolu nag malheureusement média moo koy def sunu média bi dafa nekk ci ay loxo loxo yoo xam ne du ñu ay autochtone ay étranger lañu malheureusement ndax même boo xoolee Mali. di mhm. bi bi di jaar fii di dem. da nga ay sénégalais yuy ciblé. ay maliens yuy ciblé. Mhm. suñu médias yi amutoo beneen information booy am. lu français yaa ngi dem Mali. léegi mali yi ñooy taxaw di manifester na. nañ génn génn leen retourne chez vous dem leen ngeen ñibbi seen dëkk. mais ba ñun lu ta lu tee ñun tamit ñu wanaa ne maliens ya waxoon kaay leen nee nañ génn leen léegi. jërëjëf très bien euh, jërëjëf Fafa xam ma yow da maanaam laajoo da ngaa da laaj tontu danga nga bëgg a wane ne ñun dafa jot normalement ñu war a ñu war a yeewu xàmmee terroriste yi dëgg jàpp naa loolu rek la terroriste yi dëgg mooy ñëpp bàyyi seeni réew dox ay ay continent ñëw wàcc ci réew mu leen neex rajaxe ko rey président ya bu état ba taaj fa ka leen neex loolu mooy dëgg-dëgg terrorisme comme ni ñu ko defee Libye defee ko Mali defee ko feneen ak feneen Afghanistan masala waaye nag léegi itam ba tey dama naan eh, yeewute gi li nga bëgg man commencé jàpp naa ne ci Afghanistan mii la mbirum terrorisme di di di di eh, buubee ay bagaasam ndax ñii nga tuddee woon démb ay terroriste ne damay dem faagaagal leen ci une semaine ñëw def ak ñoom ñaar fukki at di delluwaat wëccee leen say arme yëpp mhm. kon reconnaître nga ne ku ñii seen nekkin lu légal la ndax kooku war ci naa tuddee kenn terroriste ñu koy déglu yàpp naa laaj bi yëpp loolu la déedéet léegi avenir Afghanistan moom loo ci jàngal avenir Afghanistan nag lu lu doy waar la ndax euh, damay ragal ña fa ña fa ña fa nekk xam nga Afghanistan dafa am ay sunnit mhm. am ay siit am na it ay communiste ba tey yu fa nekk loolu beneen problème la moo tax afghan taalibaan yi yàpp naa ne il faut ñu ñu ñu gën a euh, ñawal seen seen seen seen stratégie ndax Russie fàttewul mukk la ko fa daloon kon sikki sàkka amul ne dana jéem a ñëwaat gembaat ngemb lu bees communiste ya fa nekk et eh, chia ya fa nekk itam bu ñu amul sens mhm. mën nañ leen a gembaat ngem bu yu pour ñu dal ci kaw taliban yi lii daal mooy sama suusi maanaam mooy li ma jaaxalagum tey ci Afghanistan bu ko defee nag tey meilleure stratégie mooy taliban yi xam li yàlla dogal te mooy faw biir Afghanistan ñu gëm yàlla ak ñu gëmut yàlla dañ fay dund. ñu accepté leen. nañ leen di accepté leen mooy lan bépp ak bu leen lislaam jox nañ leen ko jox ba mat sëkk bañ bañ leen ko xañ te gën a cramponné nag gën a cramponné maanaam mooy gën a ngoy ci seen pas-pas bu boobaa jàpp naa ne ñee duñ mën a am ay poot yu war a mën a jaar ba réorganiser wu waat pour dalaat ci seen kaw lu ñaar yooyu laa fa am souci yu may tiital te jàpp naa ne seen seen seen ñor fim ne ak ñi mag ñi ma gis war na àgg ci xam nañuy dundee ak ñi bokkalul pas-pas loolu laa ci am. kàddu ko defee kon kàddu yi mujj yi nga xam ne moom lañuy ñuy tàggatoo mooy jullit ñi jot na nag ñu yeewu waaye itam ñii nga xam ne ñoo nekk ci suñu réew yii euh, occidentaux yi gembu leen. at mii buñ ci yeewut deltu gannaaw dootuñ yeewu mukk weeru koor bi passé Israël ak dooleem te ku ne xam na ne Israël mooy Amérique gis nañ nim mu toroxee fële ci Palestine toroxtaane goo xam ne mosu koo foog dal na ko fa est-ce que loolu war inspiré suñu gouvernement yu lay yii xam ne ay petite minorité yu jóg bëgg not ay askan yaakaar ne boo yoree armement yu doy yu sophistiqué war nga mën a not ku la neex man yaakaar naa ne loolu moom miit la boo xam ne fi mu ne Afghanistan dindi na ko Hamas dindi na ko te gis nga a Afghanistan bañee diiru ñaar fukki at ngir lan seen pas-pas lañ lañ bëggoon a mabbu Hamas bañee ko diiru lu ëpp ñaar fukki at nañ gëm ne fii ci Sénégal fële ca Mali ak feneen fu mën a doon ñii fi nekk ay julit lañu ay sëti jullit lañu na ñee di bañee ku leen xañ seen seen nu ko raw ni la sénégalais yi di bañee ku leen xañ seen aq suñ muusee nag ñun suñu réew réewaan yii su fekkente ne ak nguusa ngi fi ak ak yeewu nañu bàyyi nit ñi ak seen liberté de culte nañu bàyyi nit ñi ak seen liberté de croyance nañu bàyyi nit ñi ak seen liberté de choix yow mi ñu formé ci école occidentale su fekkente ne loola nga gëm gëmal waaye bàyyil ñii ak liñ gëm ñu gëm ko bu fekkee da ngaa gëm ne sa culture ak sa civilisation occidentale moo mën a régler réew mi sa mbokk mi moom dafa gëm ne déedéet sama culture ak sama civilisation islamique moo mën a régler réew mi nangul ko ko balaa fitna ye juddu fee di fa juddu te yàgg yàgg minorité yi nga xam ne dañ leen a jëlee ca biti imposé leen ci kaw majorité yi dañuy daanu man loolu lay tëjee sama sama layif tey pour di attirer attention wu ñii fi nekk nekk ay minorité yor doole réew mi di foyee pas-pas waa réew mi nañ deltu naaw lee dooy na sëkk ko bind nii taalibe ak sëriñ daara yo dugaatee tey ca pale Afghanistan jaaree ko ci arme waaye waaye mënoon naa amee ci urne yi bi ñu leen nanguloon ci urne yi ñu gaaral seen programme askan wi ndax la fa perte ci ay milliards dana fa perte ndax la fa tuuru ci deret dana fa tuuru ndax la fa dee ci ay bakkan dana fa dee est-ce que loolu ak ak xerañ la ak ak ñëw. su ma la déggee. waaw da ngay wax ne yow maanaam sëriñ daara yi ak comme masalan eh, bu ñu doon bu ma jël misaal bu ma ànd ànd sàmm jikko dana daa bëgg moom. Hmm. bu ñu gagné réew mi doxal ko ci lislaam waaw ñi nangul ko ko. nañ leen ko nangu bu leen dëkk bi wootelee ñu xam ne lii dëkk bi wax bu leen bu dëkk bi wootelee ñeneen ñi nangu ko. exactement. Hmm. ndax ñaari culture yi mosu bokk kon yow mi gëm bee gëmal waaye nag bul imposé sa ngëm kii kii itam bu mu la imposer ngëmam imposition nag politique imposition nag ñekk occident occidentaux yi ak seeni taalibe bi ñoo koy def mosu gis benn jullit bu xëy ne damay imposé sama culture mosta am kon tooñaa ngi jamono bu nekk ci minorité lay bàyyi ko dal ci kaw majorité bi jot na nag pour ñu yeewu denc dereti askan yi ñoŋeel dereti askan yi ñoŋeel bakkani askan yi ñoŋeel alali askan yi loolu nag la ko man mooy lan doxal maandu kenn ku nekk ñu nangul la laga nga gëm ne lii moo mën a doxal réew mi su ko waa réew ma tànn ñu jox la ko librement asalaamaaleykum wa rahmatullah yal yàlla may ñëpp jàmm. yéen a ngi ñuy topp ci Fafa TV.